asalaamaaleykum waa Mouhalim mu TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi xibaar yi nag ñaan joo saa Mané la ñu koy doore moom la ñu koy jagleel Sadio Mané tey jii am 30 maanaam tey jii doon def ab anniversaire am jëm ci fanweeri at yoo xamante ci xew bëri na de tey kay jugal na ca tombeeg nag ab anniversaire am tey jii mooy am 30 ans nag lay def anniversaire anniversaire jëm ci 30 ans moom ñancoo Sadio Mané kon nag na ñëpp jug ñu tàllal loxo yi ñaanal ko moom ñancoo Sadio Mané mu am 31 32 ans ba am 34 ans dem ay 40 ans 50 ans dem ba ay 100 cent ay deux cent am ay ñetti téeméer at moom Sadio Mané ndax kat li muy liggéey ci football rëy na tey nice na na ñëpp jug ñu booloo doon benn ñaanal Sadio Mané tey jikkee dafa dugal tombé anniversaire am 30 ans bu leen fàttee abonné nag te bés kolos bi ngir doo leen manqué yeneen vidéo yaa